أعوذ بالله من الشيطان في كل موضع وفي الأوطان بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا لق لساني واحللا منه العقد وجعله ذاكرا وشاكرا أبدا ñoo ngi àndaat ak yéen ci jotaayu lasraar tey tomb bi ñu andi woon jëm ci secret bu ñu naan xam qaaf xaaf doon aayaatu yoo xamante ni si des na ko jëfandikoo ah, mu doon juróomi aaya yoo xamante ni si des na ko fekk ci biir alquran dañ leen wax rek bu leen di fàtte di abonné ci seen bi tey yaatal bi doyee allah ngir uh, ku bëgg ci uh, njariñ la rek man cee joti uh, di layaatu yooyu ma wax di xam sunu xaaf di juróomi ayaatu mën nañ ko def ci ak junj rek baada auzu billahi min asheytan rajim ñu wax bismillahi arrahmani njëkk di alam tara ila al malai min bani israila min baadi musa boobu moo ci njëkk tur wa ca euh, wa ca topp turu yàlla yi nga xamante ne si moo ànd ak moom di qadirun ala ma yurid mooy yàlla wi ànd ak aaya boobu euh, ba ca des di laqad samia allahu qawla allazina qaalu inna allaha faqir wa nahnu agniya sanaktubu ma qaalu waaw loolu mooy aaya bu ñaareel bi mooy aaya bu ñaareel bi Euh, tur wi ànd moom nag mooy qawiyun la yaxtaaju ila muayinin qawiyun la yaxtaaju ila muayinin laaya bi topp ci moom di laayab ñetteel bi mooy alam tara ila allazina qiila lahum kufu aydiyakum wa aqimu salaata wa atawu zakat moom jeex mooy laayab laayab ñetteel bi tur wi ànd moom mooy qahaarun liman taxa wa asha qahaarun liman taxa wa asha bu laaya bu ñeenteel bi di watlu alayhi naba abnay aadama bil xaqi is qarraba qurbanan fa tuqabbila min ahadihima ba aaya bi jeex euh, turu yàlla wi ànd ak moom mooy quddusun yahdi man yasha quddusun yahdi man yasha laayab eh, juróomeel bi mooy qul man rabbu samaawaati wal ardi qulillah qul afattaxsu min dunihi awliyaa ba laaya bi jeex turu yàlla wi ànd ak moom mooy qayyumun yarzuqu man yashaa'ul qul qayyumun yarzuqu man yashaa'ul quwwa aywa kon eh, loolu mooy juróomi laay yi nga xamante ni si eh, mooy laay yi gën a siiw ci xam soonu xaaf mu mel ni njariñ yi nag moom buñ ko doon wax fii ba suba duñ fi jugee waaye dañ ci wax lenn rek loo xamante ni si ba euh, ci ay njariñam la bokk ba ci njëkk mooy kaaraange képp ku ko bind tàkk ko suñu boroom dina la aar ci lépp lu mën di doon ba ca des mooy bind gi takk ko walla naan walla sango ba ca des mooy képp koo xamante ni si yor nga alal joo xam ni danga bëgg mu aaroo tam boo ko bindee def ko fa suñu borom mën naa ci carte na mën naa def alal jooja dara lu yàq du ko du ko yàq ba ca des mooy wàllu wërsëg waaw wàllu wërsëg képp ku koy faral di bind di naan wala nga bind ko takk ko suñ boroom wërsëg du la jafe képp koo xamante ni si tam euh, der di nga koy faral di jàng waaw dinga ko faral di jàng bind nga ko di ko jàng di ko jàng saaboo xëyee wala di ko jàng saaboo boo jullee timis suñ boroom dina la yaxanalal warsak incha allah ci kàttanam kon mel ni loolu mooy euh, njariñ yi nga xamante ni lenn la ci ay njariñam xam sunu xaaf di juróomi ayat yooyu ñu koy tuddee turam mm, wi ci gën a siiw mooy xam suna xaaf kon juróomi aaya la ñu ngi noonu dund nañ leen ko wax leen leen tur yi kon mel ni képp koo xamante ni si bëgg na ci ay leeral yu gën a yaatu rek euh, boo di jokkook ñun ci numéro boobu affiché incha allah dinañ la ci gën a defal leeral yu yaatu ak jàppandal jërë ngeen jëf